asalaamaaleykum mbokke xarit internet yi ñu ngi leen nuyu di leen sant ku ci nekk sa tur ak sa sant di am mbégte toogaat ak yéen di am mbégte jàkkaarloo ak yéen ñu tey nag ñu ngi fas yéene waxtaanee ñaari mbir mooy ci wàllu sunna ak bidaa ñu bëri dañuy faral di jaawale ñaari mbir yooyu lan mooy sunna lan mooy bidaa ñu fas yéene ci ànd ak Oustaz Ndiaye nga xam ne min nañ ko ci kër gi xam-xamam màcc loolu jëm ci wàllu diine tey nag dañu am mbégte kontaante dal ak moom fas yéene ko laaj ñaari mbir yooyu lan mooy us lan mooy lan mooy bidaa lan mooy sun na mu faram fàcceel ñu ko ba mu leer oustaz maa ngi lay nuyu di la sant di am mbégte jàkkaarloo ak yow euh, fas yéene la laaj ñaari mbir mooy biddaa ak sunna nit ñi dañuy faral di jaawale biddaa ak sunna biddaa nag ñu jàpp ne maanaam lépp loo xamante ne nii lu ñëw ci ginnaaw yonent bi la ñu jàpp ne lépp biddaa la est-ce que lu ñëw ci ginnaaw yonent bi yëpp am na ci yoo xam ne yu baax la am na ci yoo xamante ne nii ah, baaxul ñu te lépp ñu ngi koy boole naan biddaa tey nag ñu fas yéene laaj nga faram fàccee ñu lan mooy biddaa yan ñoo ci baax ak yan ñoo ci bon. jërëjëf ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Senclic ñi nga xam ne ñoo topp émission yi ñu ngi leen di nuyu ah, di am mbégte lool nag ci jataay bi nga xam ne moom ngeen sàkku pour ñu leeral yoo xam ni. sunu réew soxla na ko ñu leeral ko donte am na yuñ ci leer jote leeral beneen bi ci des mooy ndaw ñi nga xam ne ñu ngi fi di yëngatu ci diine te am ñoo xam ne li nga xam ne sunu maam yi noonu lañ doon dundee diine mu am ñenn yu bees ci niñ ko mën a waxee ñooñu ñëw bugg a jël ne li mag ñi doon def yépp dara baaxu ci kon dina jaadu ñu leeralal leen lan mooy sunna ak lan mooy bidaa ndax bu ñu leeralee sunna bu ëllëgee xale bu ñu wax bu def dara dana xam ndax lii mooy sunna walla lii du sunna kon dafay jaadu bu ñu ne sunna nag ci wàllu diine boo delee ci a moom dafa am lu ñu tuddee farata ak sunna foofu duñu fa yegg fi li ñu bëgg a wax tey mooy ñaari mbir mooy sun na ak bidaa da ngay dégg ñu ne groupe boo xam ne dañu wax ne ñoom ñooy axlu sunna am benn groupe bu ñu jël ne ñoom ñooy ahlul bidaa c'est-à-dire groupe bi ñu ne ñoom ñooy ahlu sunna c'est-à-dire ñoom ñooy doxal sunna mooy li yonent bi doon def ñoom kese ñoo koy def kon day jaadu ñu laal lan mooy sunna euh, boo demee ci boroom xam-xam yi ñoom dañu wax ni sunna daal buñ ko doon wax mooy wax waxu sayduna muhammad sunna la ay jëfam sunna la loo xam ne nit def na ko ci kanamam te terewu ko sunna la kon boo doon régime bu ñu leen lan mooy sunna rek mooy lu yonent bi wax wala lu mu def wala loo xam ne am na ku ko def ci kanamam te terewu ko su boobaa loolu lañuy wax ne sunna la am na yu sax dem nañ ba yokk ci ni bokk na ci sunna mooy jikkoom ak ni ko yàlla bindee c'est-à-dire mooy bu fekkee ne ay jikkoom nga di ko roy ci jikko yooyu kon yaa ngi roy sunna bu fekkee ne yaa ngi roy jëfi sayduna muhammad yaa ngi roy sunna bu fekkee it yaa ngi roy ci jëf yoo xam ne ay nit ñoo ko defoon ci kanamam te terewu leen ko su boobaa dañu jàpp ne yaa ngi def sunna kon lii daal résumé mooy sunna ci gën ko résumé beneen côté bi mooy li ñu tuddee bidaa te boobu nag moom lañu war a gën a mën a yaatal léegi dama la bëgg a wax rek Souleymane ni la e, buñ la gisee nga def loo xam ni du lu yonent bi sallallahu alayhi wa def dañ lay wax ne lii nga def bidaa la te yonent bi defu ko kon dana jaadu defe naa ñu leeral est-ce que amul ñoo xam ne ñooy saxaabatul kiram ñi nekkoon ak yonent bi am na est-ce que am na lu ñu def ñoom loo xam ne yonent bi def ko su boobaa nag dañuy wax ne est-ce bi deful yow nga ñëw def ko dañuy jàpp ne loolu bidaa la wala déet dinañ ci indi ay leeral pour nit ñi xam lan mooy sunna ak lan mooy bidaa kon gannaaw bi ñu la waxee ne na ba mu leer ñu ñëw nag ci sun loo xam ne saxaaba yi def nañ ko ci bi Seyduna Muhammad di dund lu tax ma wax loolu mooy bu ñu ne sunna mooy li yonent bi def ñu ne waaye Seyduna Muhammad waxoon na ni mu ne na ngeen jël sunnay ñi nga xam ne ñooy sama saxaaba kon li nga ciy dégg mooy li yonent bi def na la mais saxaabatul kiraam yi ñoom li ñu def mën nañ ko jàppee ne sunna la dégg nga ndax moo waxoon ne sama sama saxaaba yi ay étoile lañ kenn koo ci topp rek mën na am foo jaar ba yegg ci sa borom subhaanahu wa taala léegi bu ñu ñëwee ci jamono bi sayduna muhammad di dund pour wax la ne yonent bi muy dund saxaaba yi am na lu ñu doon def te yonent bi du leen ko wax danañ ci joxe ay exemple boo xam ne imaal Buxaari yi moo ko solo jëlee ko ci rifaa ibnu rafi az-Zarqaani dafa wax ne daanañu nekk di julli ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bi yonent bi rukkooxee boo yëkkati sigg ci rukkoo bi wax ni sami allahu liman xamida nee na am na benn góor bu wax ci gannaaw ne rabbana walakal hamdu hamdan tayiban mubaarakan fii nee na bañ demee ba pare julli gi ba yonent bi selmal mu gëstu ne waaw kan moo doon wax léegi ku góor góor gi ne man maa doon wax mu ne bi nga ko waxee ba noppi daal dafa mel ni lu ma ñetti fanweeri malaayika ñu ngi njëkkalante xool kan mooy njëkk a bind wax ji nga wax kon saxaaba yi mun nañ wax ne kon ñoom def nañ loo xam ne yonent bi waxul ne nañ ko def parce que bi yonent bi di julli waxuloon ne bu ma ne sami allahu liman xamida ngeen wax ne rabbana walakal hamdu kon ñoom saxaaba yi ci yonent bi bi muy dund am na lu ñu sos wax ko te yonent bi sallallahu alayhi boobu mu ngi dund boobu benn la ñaareel bi mooy seyduna muhammad bi mu defee isra wal dafa dem nee bi ma ñëwee ci biir aljan aljanna dama dégg tànku bilaal ci biir aljanna mu laaj bilaal ne waaw bilaal lan nga def ba jiituñu aljanna kees maanaam sew-sew bi mooy yonent bi kon am na lu bilaal doon def lu yonent bi xamul ndax bu ko xamoon du ko ko laaj mu laaj bilaal ne yow bilaal lan nga def ba jiituñu aljanna bilaal ne ah man de lenn moom xam naa ne daanaa ko def mooy saa yu ma yégee ne sama njàpp toj na danaa dem yeesal sama njàpp te bu ma jàppee ba noppi danaa julli ñaari rakk ngir yàlla seyduna muhammad ne ñaari rakk yooyu nga doon def moo tax nga jiitu ñit ñi aljanna kon bilaal moo sos jul jàpp ba pare ñëw def ñaari rakka kon ñaari exemple a nga noonu pour ne la kon nit mën nga def dara loo xam ni eh, eh, saxaaba yi def nañ loo xam ne yonent bi santu leen ko mais après yonent bi jo nangu na la loolu lu baax la te mooy li Bilaal def beneen bi ci des mooy kon loolu ci jamono Seyduna Muhammad lañ ko def beneen bi ci des am na koo góoru goo xam ni dañu dem tukki ak saxaaba yi mais moom lañ doon def muy élimaan bi mais seetlu nañ ni saa yu ñu jullee rek xul wallahu ahadun lay jàng julli yépp bi saxaaba yi ñëwee nag de dañu koy wax yonent bi ne ko ah, sa waa ji ñu noo jiite daal seetlu nañ ne julli yi mu doon julli yëpp xul wallahu ahad rek lay julli ñu ne yonent bi ne leen waa dem leen ngeen laaj ko moom mi def loolu lu tax mu def ko biñ ko laajee saxaaba bi ne ko lu tax nga def loolu mu ne ndax xul eh, wallahu ahad mooy sifatul rahman cest à mooy portere yàlla te à dire mooy décrire ni yàlla mel te dama ko bëgg Seyduna Muhammad ne ne comme moom daf ko bëgg mu ne na xam ne moom noonu ni mu bëggee saar bi noonu la ko yàlla bëggee kon te yonent bi daawul def na julli yëpp da doon jàng qul huwallahu ahad daana jàng yeneen saar mais moom saaba yi moo jëloon saat boobu rek di ko jàng di ko jàng di ko jàng comme sunu mag ñi ni ñu doon def am na mag ñoo xam ne ci naafila duñu du ñu jàng leneen lu du xul wallahu ahad kon loolu saxaaba yi def nañ ko ci dund Seyduna Muhammad beneen bi ci des mooy bi fi yonent bi jógee am na ñoo xam ne sos nañ mbir ci saxaaba yi xam nga yonent bi moo waxoon ne képp ku wax ne laa ilaha illallah kenn sañul xeex ak moom mais Aboubacar Saddiq bi yonent bi génne àddina ba mu nekk xalifa ci amirul muminin moom mu wuutu yonent bi am ñu wax ne dootuñ joxe azaka ñu ne lu tax mu ne alquran ba muy wax dafa wax ne xus min amwalihim sadaqa tutahiruhum wa tuzakkihim biha te yàlla bi muy wax loolu yonent bi la waxoon ne yonent bi la waxoon ne jëlal ci gaa yi seen azaka bi te yonent bi nekkatu fi kon dootuñ ko joxe bakar ne dina xeex ak ñoom nag bu ñu joxe azaka saxaaba yi am na ñu ko waxoon ne ndax da ngay xeex ak koo xam ne wax na laa ilaha illallah mu ne ndax mënoo séparer Aboubacar mu ne mënoo séparer laa ilaha illallah ak joxe azaka ndax li nga xam ne moom la ñu wax ne danga war a génne azaka bala ngay mën génne azaka nga wax laa ilaha illallah kon boobu abu Aboubacar bu fekkoon ne lu yonent bi tere. ndax yonent bi moo tere woon ne bu kenn xeex ak kuy wax laa ilaha illallah kon abu bakar xeex na ak ñoom li tax mu xeex ak ñoom parce que xam nañ ne kenn mënu séparer diggante azaka ak laa ilaha illallah beneen bi ci des mooy loo xam ne Omar ibnul Xataab moo ko def te ba léegi ñu ngi ciy wéy te mooy naafila xam nga naafila moom ci jàkka ji ñu koy def walla ñu def ko en groupe sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dund na ba génn àddina te defu ko abu bakar moom it mosu ko def waaye omar ibnul xataab bi mu ñëwee ñuy julli ci weeru koor ci jàkk ji buñ julee gee ba pare rek booba taa buñ julee gee ba pare rek kenn ku nekk da ngay beru commencé di di julli sa naafi la ci Omar wax ne est-ce que du ngeen ñëw ñu ñu ñu daje def benn sàppe maanaam ñu am ñu def groupe mais mu am koo xam ne moom la ñuy jiital muy élimaan bi mu jiite ñu julli ñu mu jiital keroog mu ngi jiital benn saxaabi bu tudd Ubay ibnu Kaab moo leen jiite julli gi biñ julee ba pare ca la Omar ibnu Xataab wax ni ni'matil bidaatu haadihi mu ne bidaa bu mel ni day lu baax la kon loo ciy dégg mooy bidaa kon am na ci diine bu ma ci mujjee ndax eh, mën nañ ci joxe ay exemple yu bari rek waaye comme dañ koy def rek mu mu nekk eh, ay laaj ak réponse yu xaw a gàtt bi ci mujj mooy taaya eh, boo demee ci Abu Daawud ak génn na ci xadis boo xam ne Ibnu Amar moo ko génnee jëlee ci yonent bi ci taaya nee na taaya dañ wax attaxiyaatu lillaahi salawaatu tayibaatu nee na abdullah ibnu omar nee na moo ci yokk assalaamu aleyka ayyuha nabiyu kon ñoom bu fekkoon dañu waxoon ne li yonent bi deful rek duñ ko def mais yonent bi bu waxee atahiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi abdullah ibnu omar nee na moom moo ci yokk assalaamu aleyka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa beneen bi ci des moo ne mu ne bi ñu ne ashhadu an laa ilaha illa allah ibnu omar moo wax ne man maa ci yokkaat wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kon ñoom yokk nañ ci loo xam ne peut-être yonent bi def na mais am na luñ ci yokk kon wax naa la ñetti époque bu njëkk bi mooy saxaaba yonent bi ak saxaaba yi ñaare bi mooy saxaaba ñoom kese bu mujj bi nag mooy bi fi saxaaba yi jógee am na ñoo xam ne am na lu ñu sos loo xam ne yonent bi defu ko saxaaba yi defuñu ko bi ci jiitu mooy tomb yi ñu def ci alquran tomb alquran tomb yi xoolal masque yi ak tomb yi saxaaba yi bi ñuy dund amul alquran amul masque mais taabiina yi ku mel ni xajaaj ibnu yusuf moo sos masque yi ak tomb yi moom moo ko def te xajaaj ibnu yusuf mën nañ wax ni liggéeyal na diine ji lu rëy te mooy maas bi mu maas lu alquran waaye nag buñ la waxee li mu def ci musiba kenn mënu la ko natt ndax boroom xam-xam yu bëri moom moo leen reylu ñoom ah, ah, Abdullah ibnu Jubayr ñoom moom moo leen reylu ak ñoo leen ñu mel ni ñoom beneen bi ci des mooy kon boobu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy Omar ibnu Abdul Aziz xam nga ci julli xutba iidul fitri walla idul adha maanaam korité wala wala tabaski dañ doon def mooy dañ doon njëkkee xutba bi mais moom mu xool ni ci jamonoom mu xool ne bu nit ñi jullee ba noppi rek duñu xaar xutba bi te dañ doon daa julli ba pare mujjee ko mu njëkk a def xutba bi mais moom mu xool ni nit ñi daal daanaka duñ doon dañu bu ñu jullee ba pare dañu yàkkamti dem moom nag au lieu mu jiital ko mu julli ba pare doog a mujjee xutba bi kon moom bu doon ne keneen danay wax ne ah yonent bi daal dam doon lim doon def lay def te mooy dafay jiital xutba bi ba pare doog a julli moom nag mu mujjee ko xam nga lu taxoon mu mujjee ko parce que nee na nit ñi bu ñu doon bu jiitalee xutba bi bu ñu jullee ba pare nit ñi dañuy dem léegi nag mu mujjee ko nga xam ne obligatoirement nit ñi dañuy toog déglu xutba ba mu jeex kon loolu moom it def na ko ci ci jamonoy Seyduna Muhammad euh, ci jamonoy euh, taabiina yi léegi nag ma ñëw ci tëjal la ci ñi nga xam ne ñooy wax bidaa te defe naa ne loolu lu am solo la ñu leeral ko bidaa ñaari pàcc la xam nga biddaa ba léegi Souleymane nit ñi ci wolof fi réeguñu ko ndax dañu wax ne biddaa rek bien biddaa baatu arab la mooy lu ñu sos ibtadaa mooy sos na kon lépp lu ñu sos loolu la arab di tudde al bidaatu fekk na ñoom boo ne biddaa rek ñu ne ah yonent bi ma waxoon ne kullu bidaatun dalalatun wa kullu dalalatun fi naari maanaam bépp bidaa réer la te réer bu nekk safara la la jëme kon ñoom ñu jàpp ne kon bidaa yépp yépp yépp dalaala la te dalaala boo ko defee ci safara la la la jëme loolu loo tax nag boo sosee dara rek ñu ne nangam bidaa la kon kenn waru ko def waaye léegi danaa joxe Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi ma la waxee loo xam ne sos nañ ko ay saxaaba def ko ci kanamam te du ne yonent beneen ko sant biñ fi jógee taabiina yi sos nañ dara te yonent bi sant leen ko xool nga bi ñu même dajale alquran Omar ibnul Xataab bi mu amee bi ñu demee ci benn guerre bu métti ñu rey fa ñi mokkal alquran ñu bëri ñu rey leen fa ca la ñu wax ni e, moom bi mu ñëwee mu ne nañu fexe nag dajale alquran ndax borom ñi mokkal alquran ñu ngi commencé ñu bëri dee nañ ci ñu ne kon léegi nañ dajale alquran mais Aboubacar Sadiq dafa wax ni. loolu lu yonent bi deful man du ma ko def kon mu ngi wax ni kon comme comme bu ma ko sosee day mel ni bidaa la lu ñu sos la mais Omar wax ni Aboubacar mooy wax ne Omar dañul ñëw di ma conscientiser ba ma xam ne li Omar wax looloo am ñu dajale ko mais biñ ko dajalee maasuñ ko amul tomb biñ demee nag ba jamono ñëw ci lañ ko maas defar ko ba niñ ko teg si bi ni mu mel nii tey bu yonent bi dellu soatoon ñu jël kaamilu alquran yi ñuy jàngee bu ñu ko ko joxee dana wax ne bii du ne moom lañ ma àcce woon ci man ndax booba bu ñu ko bindoon doo xamee tabbat yaddaa boo ko doon jàng doo mën a xam taa bi doo xam a mën a xam ta ak ba ndax dañ doon def ay rëdd rek bi ñu demee pour évolution bi am ci ci alquran bi ñu demee ba mu yàgg ñu gis ne bu ñu bindee ba pare da ñun te doo xam ñu ne nañ ci def ay tomb nga xam ne boo ne tabbat dañuy def ñaari tomb ci kaw muy taa benn point ci suuf muy baa benn ñaari tomb fale muy taa muy tabbat mais bu ñu ko bindee noonu bu fekkee ne doo arab dëgg dëgg bu ñu ko bindee noonu rek doo ko mën a liir ca la indi maas nga xam ne na am ne ta bat ndax bu fekkee dañ ko bind noonu bind ko nii rek te amul amul amul maska mais boo ñëwee ne tabbat mais keneen ñëw mën na wax ne tibbat mais nag ñu dindi maska ñu ñu ñu ne kon nañ ko maas li gën a waral maas nag mooy dañu romb kuy jàng alquran bi mu jàng inna allaha bariun min al wa rasulihi c'est-à-dire daf ko maas ci suuf wa rasulihi te bu fekkee ne danga wax ne inna allaha bariun min al musrikina wa rasulihi li muy firi mooy yàlla deñ na ci ci musrikiina yi waaye dañ na ci yonent bi ci maska bi nga jàngee nag wa rasulihi ca la wax ne nag nañu mas alquran ndax ki doon jàng moom mënula la moom ma déggul arab moo tax mu wa rasulihi te su boobaa boo koy firi dangay wax ne yàlla dañ na ci yéefar yi yàlla dañ na ci yonent bi ñu ne kon inna allaha bariun min al musrikina wa rasuluhu kon loolu moo waral maas te amuloon ci jamono Seyduna Muhammad amuloon ci jamono sahabatul kiram kon daal en résumé li ma la njëkk a wax ci sunna loolooy sunna li mooy bidaa bidaa dafa am bu rafet dafa am bu ñaaw xam naa beneen yoon ci ci beneen jetaay ci la ñuy dugg nag ci détails yi ndax bidaa bu rafet am na boo amee yan mooy biddaa yu rafet ak yan mooy bidaa ak lislaam boroom xam-xam nañ lañ déggee bidaa ak ñi nga xam ne ñooy wax ne lépp lu nit def bidaa la ñoom lan la ñu def loo xam ne sos nañ ko te lislaam jiituwuloon mu am te ñooñu yëpp incha allah danañ ko gën a leeral kon mbokk waa Senclic lii moo doon réponse yi nga xam ne moom lañ doon joxe ci laaj yi nga xam ne moom la Souleymane Ba doon laaj kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm doo wax asalaamaaleykum wa